wér te ànd ak mucc ñu ngi ñaan bépp liggéey boo xam ne fas yéene na ko liggéeyal baayam bi ngir yëkkati mbirum baayam bi yóbbeke foofee nga xam ne dana kawe njort ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko sëriñ tubaa defal tawféex ba mu man ko lu mu ci yéene yàlla na ko ci sëriñ Touba dimbali ñu ngi koy siyaar bu wér sëriñ Saaliw Cuun ak njabootu Cheikh Béthio gi yépp ñu jigéen ñeeg ñu góor ni ñépp seen jaam seen taalibe mu ngi leen di siyaare bu baax te ñaan ndimbalu sëriñ Serigne Touba bi ci suñu wax ji mhm. ñu bañ fee wax rek ndeysaan luñ naan accam ñu koy dagaan Serigne Saliou di ñaan sëñ góora mhm. ba leneen loo ma laaj mhm. waaye day mel ni laaj bi nga tàmbalee laaj bi xam naa sax du ñàkk ni dana am lu nu lu nu jiital euh, sa digg ak Serigne Cheikh Béthio naka nga ko xàmmee ba tey nga nekk taalibeem waa sëriñ góore loolu dafay yomba tontu ndax maa ngi fàttaliku booba 1987 la booba ma ma jul daanaka fukk ak fukki at ak juróom benn laa am ak cant bu Cheikh Béthio doon def boobu la njëkk a def boobu ca golf mhm. mu ngi ko defoon bisu àjjuma samedi ak dimaas weeru weeru mars la woon mm-hmm. booboo cant la taxoon ma dem ca mooy dama yàlla sunu borom dafa def dama dama dama dama bëgg cere cere cere yi moo ñëw moo ma yóbbu woon ci cant ga mm-hmm. boo yi sama atelier boo yi ñëw di wax waxu cere yaag ak nag yi nu mu bareek nangam nangam ma ne ah man de kon fa leere leere mm-hmm. ma wàcc sangu rek reere wu ma sax suñu kër xaaluma reer bi noonu laa jubalee dem ci cant ga ca golf fi ñuy wax croisement Cheikh Béthio léegi dem fekke cant gi yàlla def bu ñuy bu buñ buñ euh, ñi yenu ndab yi mhm. buñ génnee ba rang rek ba teg jiiroo bi day bari te yàlla am nu ma bindee woon ñoo xam ne maanaam ma xaw a yëg sama bopp tuuti ma xawoon na mel na ku xaw a silwise mhm. loolu sax doo ak silwise waaye jamono boobu da ngay jàpp ne rek yow waaw ku silwise nga ba doo mën a jiiroo buñ ne buñ tegee bool yi rek ma daal di rocceeku taxaw ne naan xool ñii rek ñi daal mal si si nangam nangam noonu daal ba yàgg rek ma ne ah na comme yëf yaa ngi dem. Mhm. naa dem rek déglu ma dem booba cant googu ab laay Ñang moo jàng jàng yi. Mhm. keroog laa njëkk a gis Baye Ablaye Ñang di jàng. Mhm. Sëriñ Samba yi moo def waxtaan wa xam nga loolu 1987 la. lu yàgg la waaw. ba ma dem taxaw di déglu ba Cheikh bi jël rajo. di wax ci sëriñ Saliou di wax wax ju kawe ba na ba yegg ci ne man de képp ku ànd ak man ma teg la ci loxoy Serigne Touba wax jooju nag doon wax ju rëy du ma dégg ci kenn loolee jàpp ma ba cant gi jeex ba ma ñibbi mu jàpp ma ba ci suba gi ba ci gannaaw suba gi talaata ba muy talaata le 12 mars 1987. maa ñëwal sama bopp kenn indiwu ma. ñëw jëblu ci moom. maa ñëwal sama bopp dugg ca te biir kër gi. Mhm. booba seex bi boo dugg see saal bi ngay njëkk jot rek fa lay toog saal bi sax daawul fees. Mhm. saal bu ndawam boobu daawul fees. fa laa ñëw romb ñëpp yegg ba ci moom sukk ne ko damay jébbalu si kenn yóbbu moom man mi maa yóbbu sama bopp. lu ko jiitu nekkoon nekkoon nga taalu benn sëriñ ni ñu miin senegal bu fekkee da nga judd ci kër sa waajur nekk taalibe en général moom moo lay tànnal koy jébbalu dafa fekkoon ni yow amoon na koo xam ne ci nga jébbalu woon laata ngay gisee Cheikh Béthio walla mosul woon am sëriñ. yàlla dafa dogal mosuma sukk ci kenn jébbalu ci moom terewul nag ni ñun askanu naaru Darmanko ku ne xam na sunu càllale ci sëriñ Touba waaye naar yi sant jaañ gumbale ak Amar dañoo am. ab seex boo xam ne sëriñ tubaa nee nañu sëriñ tubaa moo ko seexaloon mhm. muy sëriñ Souleye Diagne sëriñ Souleye Diagne di sunu mbokk di sama sama nijaayu bàyyi ba tax na kooku moo nekkoon sunu sëriñu famille sama waajuru góor bokk foofu muy waa daaru xudóos sëñ Souleye Diagne ki fa nekkoon jamono yooyu di sëñ sang Diagne wàcc na liggéey yàlla na sëriñ tubaa yokk ay leeram muy jëmm ju baax nag jëmm ju tedd ju sell sëñ sang mhm. sama waajuru yaay nekk ci waa kër da waa waa daaru salaam amoon na it samay mag yu góor waa kër sëñ ab Sakkoor nga xam ne daanaka sax ci loolu laa gindee ci loolu laa xamee ndax suñu kër moo nekkoon daayira bi daayira Dakar bi nga xam ne waa kër sëñ ab Sakkoor yi la mhm. dimanche bu jot ba fii may wax ak yow dimanche bu jot suñu kër la ñuy daayira Baye Fall yi Sam Fall mu neex lañ fay def sëriñ Fallu Fall bu ñëwoon Ndakaaru sunu kër lay dal muy xalifa sëriñ Abdou Sakkoor Fall maa ngi koy siyaare bu wér te di ko ñaanal gudd fan ak wér ñoom it ñuy jëmm yu yu jëmm yu baax waaw jëmm yu jëmm yu sell waaye sëriñ Tuubaa mel noonu noonu daal la demee nga dem ma jébbalu ci kenn mhm. Cheikh Béthio laa mës a mhm. sa njébbal naka la demee naka la ko woon nangoo waa bi muy egsee ndeysaan damaa ñëw rek daal di xuus dugg amoon na jamono boobu nag mbirum bëkk néeg jenn jigéen ñoo moo ko doon def jarbaatam la tuddoon Awa Dieng. moom moo nekkoon bëkk néegu sëñ waaw xeetu bëkk néeg la woon daal. Mhm. mooy doon def loolu Awa Dieng ndeysaan eh, bi ma egsee moom laa njëkk a gis ma ne ko man sëriñ bi laa bëgg dem mun ma mun ma demal yeggal daal may def signe pour ma jàdd ci saal bi mu ni tëll ci saal bi gis seex bi ndeysaan mu toog. mbokk taalibe yi toog ci suuf ma egsi dem ba ci moom mu ne ma ndongalee na nga def ma ne maa ngi sant damay ñëw ngir jébbalu si mu téye samay loxo ne ma jébbal naa la naa la sama bopp àddina ak alaaxira ma waxee ko ko noonu moom moo ma wax nu ñu moom moo ma toqantale nu ñu koy waxee ma waxee ko noonu mu daal may laaj fu ma dëkk ma wax ko mu ne ma kon dey boo yeboo daara ji ci Las Palmas ndax moom nga gën a jege sa kër. Mhm. daara may boole ci daaray Las Palmas ndax cheikh bi. Mhm. bu ku jébbalu dafa lay laaj fan nga dëkkee fi nga dëkkee am na daara ju fane ne. Mhm. wala boo bu fekkente ne daara ji nekkul gox bi nga dëkk dalay boole ak daara ju jege ak gox bi nga dëkk. daara ji mooy comme ni ñuy def daaray Serigne Saliou. nga xam ne ñi jébbalu ci Cheikh te bokk gox lay boole. ñuy daje. di waxtaane ndigalu Serigne Saliou wi ak di waxtaane maggaayu Serigne Saliou yi ak di waxtaane kéemaanu Serigne Saliou yi ñoom ñooy tàmm nag seen bis buñ koy def mhm. ñu ne sunu daara ñaari bis lañ jëloon muy bisu guddi ajuma ak bisub dimanche jamono boobu soxna Asu Sekk jigéen moo jiite wu moo nekkoon jëwriñ ja mhm. waaye jëwrin la woon jëwrin waaw moo nekkoon jëwrin ja noonu yi la demee woon day ndeysaan muy jëmm ju baax soxna Asu Sekk ñu ngi koy ñu ngi koy siyaare bu baax moom day fa mu ne woon ba léegi ma nga fa. Mhm. yàlla na Serigne Touba gën a dolli ay mbiram. ginnaaw njëbal loolu ba mu daan lay dële benn daara boo xam ni moo la gën a jege fi ngay dem ngeen di def daayira noonu laa ko mën a déggee. Mhm. Eh, yow da nga amoon diggante ak sëriñ bi ci xaritoo ci jaxasoo goo xamante ni dangeen ko amoon ci bi yow ak sëñ Cheikh Béthio. waaw amoon na ndax man damaa damaa man damaa jébbalu rek daal di tàbbi. dama jébbalu rek daal di tàmbalee dox maa ngi fàttaliku ca ndigal li ma njëkk a li ma njëkk a jëf eh, liñ ci te weeru koor la waaye comme xamoon naa mbir nu muy do nu muy xaw a doxee mbiru weer weeru koor dañ daa yóbbu suukaru koor ma dem jënd sama ñaari gorosu suukar ñëw keroog samedi bi ma njëkkee ñëw cant mm-hmm. boobu saal bi sax feesul Cheikh Béthio amul ñaar fukki taalibe yu ma mag mooy egg si samay ñaari gros suukar. cheikh bi ne ma ah man dey damaa jot ndigalu Serigne Saliou daanaa yóbbu suukar waaye ren jii day duma yóbbu suukar ndax Serigne bi nee na ma nit ñi day sàllaaw taalibe yi day dañuy dégg suukaru koor ba fu ne lañ may indilee suukar ba sama kër gi day fees dell ak suukar ba indi fi ay weñ ba tax na yow de dama lay digal bul indi suukaru koor na nga ko xayma ci koppar nga indi ko ay koppar. looloo tax ren jii moom Cheikh Béthio. du yóbbu suukaru koor koppar la koy def yóbbu waaye man fekk na jënd naa samay gros suukar ba ñëw mu ne waaye say gros yi demal nga jox ko soxna mboose ndax jamono yooyu soxna mboose mooy segg kafek cant gi boobu soxna mboose moo daan mboose mooy taaw mooy aawam mooy aawam bi moo daan segg kafe gi mhm. ma dem jox ko soxna mboose keroog moom la suukaree kafe cant gi loolu ma indiwoon moom la indi moom laa dem jox ko ko moom la suukaree kafe kafe cant gi mhm. ba ma tàbbee nag ba léegi nii fu ma toogee weer bu ma gisul Cheikh Béthio rek xanaa damaa nekkul Sénégal mhm. demoon na ba mën na maa lim ne bokk te bokk naa ci ñi njëkk lu ñuy wax lu ñuy xaw a wax te bëkk néeg di lal basaŋ mhm. di lali bu ma liggéeyee ba wàcc 6 heures damay jaar ci kër ga génn basaŋ yi bu fekkee jamonoy tàngaay la may génne fauteuil bi seex biy toog mu toog nii ma toogee jàkkaarloog mbedd yi nit ñi di romb ñuy dem géej entraînement di romb ñuy ànd ak seen yooyu noonu ànd di romb cheikh bi aka wa aka aka aka defi yëf ñuy dem footballeeg di romb ñu toog ci buntu kër gi basan gi sax daawul fees may toog nii ci wetu cheikh bi ci ndijooram ñuy waxtaan muy waxtaan ak ñun ci Serigne Saliou ci màggaay yi Serigne Saliou kéemaanu Serigne Saliou di ñu jàngal lan mooy ak murit ak di ñu xamal lan mooy ak murit boobu bu ziar bi jeexee Cheikh Béthio moo daan moo ma daa gunge ba suñu kër dadaa taal oto bi ndax jamono boobu mu ngi liggéey ci mairie bi nekk administrateur civil principal nekk secretaire général de la communauté urbaine de Dakar waaye bu bu siyaar bi jeexee bu mbokk taalibe yi ñibbi te damay ànd ak moom bu ma laalee basan yi laal dugal fauteuil bi dañuy yéeg ci kaw soxna mboose teg reer bi maag seex bi ñuy reer mooy dagg di ma tegal mm-hmm. ñooy bokk reeram bi mu mujjee reer maag moom ñoo koy bokk muy dagg di ma tegal mm-hmm. bu ñu paree léeg-léeg mu ne ma seex guddi na bàyyil ma yóbbu la day jóg sol blouson wala mu sol lu woyof taal oto bi yóbbu ma ba sama bopp koñ ma wàcc dugg sama koñ dugg sama kër moom mu retourné dellu si xam nga ne boobu jamono ak léegi wuute na. Mhm. booba fukki at ak juróom benn laa am. Mhm. léegi benn at moo manqué ma am juróom fukki at. Mhm. kon xam nga ni. xam ngeen diggante lu ma wax ci sëriñ Béthio rek eh, kenn du ko dindi. ndax damaa fekkee. xanaa daañu dellu ci loolu ak euh, benn jamono. Hmm. noo xamee ni itam ni leen ko jàppe woon gisoon muy doon dox doxit boo xam ni miinuñu ko woon ci suñu sëriñ si nu koy doxee. kilifa boo xam ni mën na jóg fii euh, def li ñuy wax fecc nga baal ma ci wax ji noonu laa ko mhm. mën a tuddee mhm. ak yeneen yoo xam ni itam daanan ko dégg nii moom daana ni doxee euh, kon tey lan leen mën a dégg ci loo ñuy wax ci maanaam mbirum baatin moo xam ni tey Serigne Cheikh Béthio amoon na ko noonu laa ko mën a waxee baatin day duma ci dugg walla ay mbiram daal tey noo ko noo ko mën a jàngate comme mbiruñu woon mi ngi def loo xam ne gisoon nañu ay sëriñ lu yees waaw indi indi lu yees waaw waaye loolu da dama lay dellu rekk ci sunna mhm. waaye jamono boobu noonu la mënoon a demee ndax sëriñ Saaliw moo xam li muy def ak man li muy def bu seexaloon bu defoon li mu def nii ci Seex Béthio koo xam ne da da dafa càllale ci càllale mbàkke gi wala faal wala buso mhm. walla jeng du demee nii mu demee dafa seet koo xam ne ku méngoo ak jamono lay doon ndax foofee mu ko defal dëkkuwaayam muy sow ndakaaru mhm. foofu pour nga dimbali fa nit du yomb faw nga wàcc ñëw fa ñu toll ñoom ak fa ñu ne seex mhm. bi li sëriñ Saliou def sax kenn mënu koo xam mhm. jamono boobu fecc boo bëggee woote nit ñi wuy si la faw nga dugal ci am pecc am pecc mas naa waaye Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni muy wax ni gone ak jigéen boo leen bëggee defar maanaam doo leen tëb ne leen yàllaa ngi nii. déedéet di fekk ci li ñu. nekkoon da fekk ci li ngeen li li ñu li ñu xam lu ñu jàpp ne loolu la. Mhm. te ndekete yoo boo demee ba ci biir da ngay xam ne ndekete am pecc ci diine lislaam la bokk am pecc ci sunn la dafa nekk nag fecc mii ñuy dégg bu ñu nee fecc am foo ko déggee bokkul ak feccal sëriñ tubaa ndax ku ne jàng na ku ne dégg na te ala al badru na keroog bañ koy woyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jóge màkk di dugg biir madina waa madina génn di ko teeru di tëgg seeni tabala yi ak seeni bool ñu mënul ñu amul bool amul tabala jël seeni loxo di tàccu ak fecc keroog yonent bi sallallahu alayhi terewu leen fecc moomee te sunna mayee na sunna wax nañ ne lépp loo xam ne def nañ ko ci kanamu yonent bi wala lu yonent bi def nit ñi gis ko wala loo def ci kanam yonent bi te terewula ko loolu mënees na koo jàppe sunna te keroog ba ñuy teeru yonent bi sallallahu alayhi dañoo fecc ba poussière bi jóg te yonent bi sallallahu alayhi terewu ko am pecc la woon waaye pecc moom ak cant la woon ndax taala al badru na min shariyatil wadaahi wa jaba shukru na boobee ñu doon woy ngir di sant yàlla ci gan gu tëdd gii leen yàlla indil seen yaram neex seen xol sedd ñu jóg seet nuñ ko manda nuñ ko manifester ba mu yegg ci seen cër ñu du ko yëngal loolee tudd am pecc ak dukkat la waaye boo nee pecc boo nee dukkat. Mhm. dafa mel ne du ñu ñëpp duñ xam danga nga naan fecc ndax mu gën a yomb. Mhm. te ku ne xam na it addis wane indi na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaafar ku ne xam ne jaafar. Mhm. jaafar jàppante na xuloo na ak Seydina Omar Seydina Omar jàppante ak jaafar. waaye na ci jàppante ba Seydina Omar moo am dëgg. Mhm. ñu ñëw ci yonent bi yonent bi àtte leen xamal Jaafar ne ko Omar mii moo am ci sa kaw dëgg. Mhm. yonent bi comme suma boroom defal na ko ak Bachira nga xam ne day xam lu nëbbu xam lu feeñ xam ab xol. Mhm. mu xam ne Jaafar day àtte bii ma ko àtte naqari na ko daa bëggoon ma faral ko. waaye xolam bii di metti day man yonent bi waruma fexe ba Jaafar xolam bi di naa ko seral mu xool xool xam ne Jànfar bëgg gim ko bëgg mu ne ko Jànfar jógal taxaw Jànfar jóg taxaw mu ne ko xanaa xamoo ne yow ñi yàlla bind ñëpp yaa ma ci gën a nuru mhm. keroog Jànfar bég na mbég moo xam ne dafa fecc ba daanu ci kaw yonent bi sallallahu alayhi te loolu yonent bi terewu ko fecc gi mu doon fecc sant yàlla ci nuróole gi ko yàlla nuróole ak yonent bi sallallahu alayhi mhm. mu bég ci ba fecc ba daanu ci kaw yonent bi sallallahu mhm. te terewu ko kon fecc dagan na beneen xisa soxna Aïcha mhm. di soxna yonent bi sallallahu alayhi ab taalibe ab ab ab jox na jox na yonent bi àddiya aw jën ab nappkat mhm. dem ci géej ga ci dex ga napp jën jox ko yonent bi sallallahu àddiya mhm. yonent bi téye ci ay loxo ñëw ci kër gi jox soxna Aïcha ne ko soxna Aïcha lii de dañ ma koo jox àddiya toggal ma ko soxna ay sa jël dugal ci cin mhm. muy togg mhm. di togg di togg lu mel ni suba ba ngoon jot mhm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ay Aïcha yow jën ba ma la joxoon gin nga toggal ma ko xanaa daa ñorul mu ne kaa ah, ku tedd ki man de jën baa ngi ca taal ba boobu ba léegi maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi ronq maa ngi ronq maa ngi ronq waaye mun maa fexe ba mu ñor mu ne ko ah Aïcha loolu de fàtte naa la koo wax waaye yàlla moo ma defal lépp lu ma laal sama loxo yi du lakk mm-hmm. te jën bi ma ko waa ji joxee dama koo téye ci samay loxo loo tax du lakk boo ko doon togg fii ba déwén ni du lakk soxna Aïcha xam ne moom soxna yonent la yonent bi nee na ko lépp lu ma laal ci samay loxo du lakk mm-hmm. moom mu xam ne yoon moom soxna yonent bi la yaram bépp yaramam bépp yonent bi sallallahu alayhi teg na fa loxo loolee mu dem xam ne kon moom yaramam bi du lakk mu def ko ak cant yàlla keroog dafa sant ba kott yonent bi sal dafa jóg fecc mhm. ne ko yaa wax ne loo laal ci sa loxo du lakk yonent ko yàlla defal na ma lu ma laal sama loxo bi du lakk keroog soxna Aysa dafa jóg fecc ba laqasu yonent bi foon ko te yonent bi terew ko mhm. beneen it addis yàlla suñu borom def na bu ëllëgee yol ma xiyaam bu jaam ñi taxawee jinne yi wër ñi malaaka yi wër ba yàlla sunu borom kenn ku ne jot sa leetar ba kenn ku ne di jox wuti sa këru ajana di dugg ñi war a dem ajana di dugg kenn ku ne xam na ne du dox ab dukkat lañuy dox ndax keroog dañuy dégg baatu yàlla buy bàkku naan su jaa tun su jaajaa boobee ñuy rëkk ay junjun mhm. di way naan su jaajitun su jaajaa keroog képp kuy dugg ci sa këru àjjana doo dox ak dukkat nga fay dugge dañuy fecc dugg ci biir àjjana kon am pecc ci diine lislaam la bokk dafa fekk ne rek fecc ngir tax ngay fecc loolu moo am solo waaye nit defal la nga bëgg walla yàlla sunu borom jaar ak yow foofu xalaatoo ko xam nga ne sa baay mënu ko sa ndey mënu ko yàlla sunu borom jaar ay dogal def la noo xam ne nga gën say gën say gën say gën sa mbokk mbokk yépp ma gën ci kookee bu jógee bay feccal yàlla ne dama koy sant loolee yàlla da koy nangu lool te da koy nangu lool ndax alxuraan wax na ne laa in shakartum la azidannakum man yàlla képp ku ma sant ma dolli la cant gi nag ni nga koy manifester li ngay njëkk a def mooy fexe ba rindi ni ko sëriñ Saliou jàngale fexe ba rindi. wut saw gàtt ku dagana rey nga rindi togg ay ñam woo mbokk nit ñi waxul jullit rek déedéet nit ñi. jaamu yàlla yi doo ci xam doo ci am xaj ak seen togg ay ñam yu bari te neex nga jox leen ko. ba pare nag taxaw ci digg mbooloo ma wax lu tax taxaw wax lu tax nga sant. lan la la yàlla defal loo yëg ba tax nga sant taxaw gi ngay taxaw nag di ko wax dina dem ba yegg ci sa xol foo xam ne say cër dootu mën a taxaw dootu ko mën a téye. Mm-hmm. nga jóg yëngal say cër loolee sunu borom da koy nangu. Mm-hmm. moo tax Cheikh Béthio comme nit ñi nag moom. Mm-hmm. dèjà mooy li ma tàmbalee na wax Serigne li mu def kenn xamu ko. turam bi rek moo njëkk a yéeme. ndax ku ne xam na ni laata muy yëngal ku tudd Béthio moom mosul woon am Sénégal. Mm-hmm. Cheikh Béthio moom foo ko tuddee kenn kese la moo tax Serigne Saliou mooy lu kenn xamul. Mm-hmm. dafa defar loo xam ni lu unique la defar Béthio moom amul woon ci senegal moo ne tuddul Béthio de. Mm-hmm. Maajoor la tudd. lu ngeen Maajoor la tudd dafa fekk ne. ki ñu ko tuddee ci jamonoy buur dak ak baraak bu waalo ci waalo waalo. kañ ko tuddee maajoor la tuddoon waaye dafa yoroon fonction wu ci buur bi fonction wu comme ni ma la mën a waxee ne ministre de l'intérieur mhm. mbirum nguur gi mbur mbirum mbirum secret mbu nguur gi secret kër gi kookee ki ko yoroon fonction boobu moo tuddoon moo tudd Béthio mhm. waaye ka ko doonoon dëgg comme ni ñuy waxee ministre de l'intérieur ministre des forces armées ministre nangam ministre nangam dem ba nit ki buñ ko falee loolu. naan ko monsieur le ministre. xam nga lu ma la wax. Mhm. noonu la demee waaye Béthio moo nekkoon ministre de l' intérieur Barack bu Waalo. kañ ko tuddee. Mhm. Maajoor la tudd. waaye comme mi fonction boobu la yoroon ñu naan ko ah Béthio Béthio Béthio. Mhm. bàyyi maam maam kulli xaritoo woon ak kookee di Maajoor tuddoon Béthio. Cheikh Béthio gane àdduna mu tuddee ko ko. waaye comme Béthio la ñuy wax naan comme monsieur le ministre monsieur le ministre rek. Mhm. Béthio bay woy te loolu lépp mbirum Serigne Saliou. Mhm. bëgg a def loo xam ne. Mhm. bu bu bu ci dugalee loxoom rek ñëpp dina xam ne lii mbirum Serigne Touba la. lii mbirum ko. ñu ngi lay gërëm sëñ Cheikh euh, Diagne la. di suñu gaañ di taalubéeb sëñ Cheikh Béthio Thioune sàkk woon itam waxtaan wi ngir daal di leeral fàttali ñu kook nga xam ne moo di sang bi sëñ Cheikh Béthio Thioune. daañu ñëw foo xam ni tey fi la ñu fi la ñu toll. Mhm. ci jamono mën naa tudd ni këram léeg-léeg ñu dégg ci ay ay ay ay yëngu-yëngu yu yu kawe. Mhm. Euh, mën nga ñu fàttali li moom nan la doon cërale ci ak dundam maanaam yëfam dafa mel ni daf ko doon séddale. Mhm. tudd nga léegi ñoo xam ni ay jëwriñ lañ woon nee nga wala sax ba tudd koo xam ni bëkk nekk lañ ko doon wooye ci ci këram. ci ni mu daan joxe ay cër ci dundam loolu mën nga nu ko fàttali ak tey ñi nga xam ni jël nañu yore nañu ay cër yoo xam ne nee nañu cër yi sëñ Cheikh Béthio mënu ko joxoon ci ak dundam loolu koo xam ni tey danga dund ak moom ci bi ngay am fukki at ak juróom yu manqué ni nga ko mhm. waxee ba yàlla tegal tey nga am sa juróom fukki at kon daanaka lu ëpp sa dund yow ci wetu Cheikh Béthio nga ko def dëgg la waaw moom de ndeysaan Cheikh Béthio day jëmm joo xam ne suñ góor waxtaan ci moom dafay yomb lool ndax tedd nga am ja ndax màggaayam ba mm. ndax bëggam nga sëriñ tubaa muy koo xam ne sëriñ saaliwu da koo seexal 1987 ne ko Cheikh Béthio Béthio Thioune mu ne ko Mbàkke mu ne ko bis ni tey de def naa lu ci yow loolee ñuy wooye ak ceex sëriñ Béthio na ko moom Mbàkke lu di ak ceex mu ne ko mënoo koo xam waaye na nga jàpp sama digg ak yow mu mel ne ñaari ndabi ndox yoo taaj di tànk ci lii di sotti ci lii munoo cee xam lu dul doq yuy wadd ci diggante bi ndax li ma def ci yow de kul yàlla sama borom xamu ko déggoo wax bi de mu li ma def ci yow mm-hmm. ku dul yàlla sama boroom xamu ko te moom moo ko ci def mm-hmm. ne ko ku dul yàlla sama boroom xamu ko te moom moo ko ci def moom Serigne Saliou kon wax jooju leer na nañ mm-hmm. waaye terewul sëñ Béthio wàccee loxoom keroog la gën a takku. xam ne yàlla yemul fenn sëriñ Touba yemul fenn topp sëriñ Saaliw toppin woo xam ne man day li ma dégg ci taarix musuma déggee ku ni toppee noonu ab sëriñam. waaye loolu day delluwaat ci li nga xam ne moom la ñuy wax leerug jamaal ak leerug jalaal loolee mooy àdduna moo sos àdduna fii ak jant baa ngi am asamaan di am suuf di am nit ñi di am jalaal ak jamaal faw dañuy ne ci àdduna ndax ñooy leer gi nga xam ne mooy gindi jaamu yàlla yi ndax yàlla bind ñu indi ñu ci àdduna bi ngir mbugal ñu déedéet ngir yërmande moo tax ñu bind ñu yërmande jooji nag faw sunu borom dina niital nit ñi ñi tegu ñi nar a dimbali ku ñépp dañ tegu ci ndimbal loolee làmp bi di leen niital di leen indiwaat ci moom yàlla moom moo jóge ci yàlla di indiwaat nit ñi ci yàlla lenn képp la leerub jalaal ak leerub jamaan su ma la koy misaal dama lay wax ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak Abu Bakr Siddiq waaye lu gën a yomb dama lay wax ci maam Cheikh Ibra Fall Babil diina ak sëriñ Touba lenn képp lañu maam Cheikh mooy sëriñ tubaa doon gi mu doon Serigne Touba moo tax mu mel ci ni mu mel xamee Serigne Touba nu kenn xamewul Serigne Touba ndax day moom day moom sëriñ Touba moo jël ci mbiram def maam Cheikh Ibra Fall kon day xamee Serigne tubaa fu ko kenn dul xamee day mën a wax ak sëriñ Touba lu kenn dul dégg ndax lenn lañu leer googu mooy sar sar ba ñëw ci sëriñ tubaa Serigne Saliou Mbacké te sëriñ tubaa dimbali sëñ Béthio ndimbal loo xam ne da ko ko wan ci ay ci ay façon yu bari sëriñ Béthio am na bis sëriñ tubaa wan ko sëriñ Saali wan ko naka la doonee sëriñ tubaa sëriñ tubaa naka la doonee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka la doonee yàlla sunu borom cheikh bi daa tëdd gént ak leer gu sori mu di ko xool di ko xool mu ni waaw waaw mii li moom leer gi moom rafet na di baat bi na ko kii de mooy lépp baat mhm. na ko kii mooy lii mooy lépp mooy yàlla sunu borom leer googi di soppiliku di soppiliku ba yor forme ba yor forme nit jëmm mhm. mu ni waaw nit la wala mu ne ko kenn ki la jëmm jooj di rafet mhm. di rafet di rafet ba doon maanaam xeetu rafetaay boo xam ne tey jii boo ko doon expliquer mënoo am lu ko mandat ci àdduna mu ne waaw lii moom rafet na leer gi la leer gi baat bi ne ko yonent bi sallallahu alayhi la mm-hmm. muy soppeleku leer googu ji leer la woon bu mm-hmm. jël forme jëmm jël forme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent di forme di formé waat ba jëmmi jël jëmmi Sëriñ Tuubaa sol grand mbubbam mu weex mi ko ñëpp xamee ci photo moo wii mun waaw ki yonent bi la wala Serigne Touba baat na ko kenn ki la muy dem sëriñ tubaa moom yi di soppaliku di soppaliku di soppaliku ba doon Serigne Saliou sol basin bu bëla bu baax mu ne waa Cheikh bi ne waaw waaw kon doon na Serigne doon na Serigne Saliou di baat bi na ko kenn képp la kenn ki la mu xëy suba yàkkamti yegg Touba ngir wax ko sëriñ Saliou mu yàgg sëriñ Saliou sol mbasin bu bu bëla seex mm-hmm. bi daanu sëriñ bi xam lépp léeg mu toog ba yàgg daal di gën a defaraat mbubb mi mm-hmm. ndax ci biir gént gi bi mu soppalikoo Serigne Touba bi mu soppalikoo sëriñ Saliou ba doon sol basin bu bëla bi seex mm-hmm. bi nee na damaa jege damaa jege ba gis motifu mbubb mi motifu basin bi. Mhm. bu la baxa bi mu doon damaa dem ba gis motif bi ndax bu ma koy nettali dama doon ndax bu ma koy nettali ma xam li may wax ndax mu leer mu xëy suba dem sëriñ Saliou sol mbubb moomu toog hmm? barke sëriñ tubaab nee na sëriñ Saliou day toog ba yàgg mu defaraat mbubb mi gën ko ko sànniwaat ngir mu gën a xoolaat gën koo xoolaat bu baax ndax Cheikh baa ngi toog ci ay tànkam hmm. sëriñ bi ni mu toogee ci ci ci ci ci fauteuil bi mu toog. nee na day jékki-jékki daal defaraat mbubb mi gën ko koo tàllal gën ko koo leeralal mu dem ba wax mu hmm, sàllaaw de matul leeral de lépp xam nañ ko de hmm. waaye na nga jàpp ne day saay boo géntee gis ma lépp lu ma wax ak yow wala lu ma jëflante ak yow boo xëyee na nga jàpp loolu ndax seytaane mënumaa làqoo loolu leen dara gënu koo leer te man lu ma la wax lu ne ci sëriñ Béthio sëriñ Saliou lu ci bari dama ko fekkee hmm. man ba may ànd ak sëriñ Béthio di dem siyaare ji sëriñ Saliou boobu sëriñ Abdou Lahad Mbacké moo fi nekk xalif général des Mourides mhm. ak Serigne Abdou Khadir ñoom ñëpp siyaare naa leen kon lu ma la wax ci diggante sëriñ Saliou mhm. ak Serigne Béthio lu may fekkee lay doon leneen lu ma lay wax ne la dégg sëriñ Béthio nee na maa toog Serigne Béthio waxal ko boppam ma dégg kenn du ma nettali. te mhm. nam koy waxee loolaa la noonu laa la koy waxee. ba tax na mbirum Serigne Béthio man témoin laa ci. Mm-hmm. muy jëmm joo xam ne kenn mënu koo xam mm-hmm. bëgg sëriñ saaliwu sëriñ saaliwu ndimbal dif sëriñ saaliwu ne na ko sëriñ tubaa dalaa nangule nu mu mësta nangule kenn mm-hmm. dem na ba ne ko yaay man maay yow beetoo yaay man may yow sama diggante yow santante la ni nga may sante laa lay sante dem ba yàgg mu ne ko Béthio mu ne ko Mbàkke mu ne ko ku la gisati dem àjjana ku la xamati dem àjjana Sëriñ Béthio ne ko ah loolu Mbàkke loolu moom loolu man ne Mbàkke loo ma wax ma wax ko man de loo ma defal ma wax ko moom Mbàkke lii bu ma ko waxee mbaa réew mi duñ dal sama kaw Sëriñ Saaliw ne ko boo dell soow mhm. na dem ba ca waxukaay ba nga wax ko fa mhm. keroog Sëriñ Béthio jubal siwul këram mhm. rajo senegal boobu rajo benn rajo rek a fi amoon rajo Sénégal la jubali ëf rajo bi fay ñu jox ko mu wax ne sëriñ Saliou nee na ma tey jii képp ku ma gisati dem ajana ku ma xamati dem ajana defal na ko ay may yoo xam ne lu lu lu lu loo mënta xalaat sëriñ Saliou jaar na fa ak Cheikh Béthio waaye nag Cheikh Béthio daa am ndimbal mm-hmm. ndimbal li mu am mooy 1946 ba muy jébbalu ci sëriñ Saliou doon gone gu ndaw am juróom-ñetti at sëriñ Saaliw romb ci toolu baayam mu ànd ak magam di ruuj ca taset Cheikh Béthio samp gopp ba sëriñ Saaliw daw ak ak watiir wi jaar ci diggu tool bi Cheikh Béthio gis watiir ba nee na booba day loqu njuuru gone moo ma jàppoon ma samp gopp ba daw di lang ca watiir ba sëriñ Saaliw na koose bi taxawal coche bi taxaw mooy kiy dawal mu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko neel ndongo loolu mu ñëw nuyoo. Mhm. sëriñ Béthio nee na mu ñëw tal loxo sama benn loxo sëriñ Saliou. Mhm. waa coche bi ne ko ne ko ne ko Mbàkke nee na boobu xaw ma luy Mbàkke keroog laa mos a luy Mbàkke. Mhm. mu tàllal ko benn loxo Serigne Saliou ne ko laaj ko noo tudd mu ne ko Béthio Thioune mu ne ko kee nga àndal kan la mu ne ko sama mag la mu ne ko woo ko mu ñëw nuyoo mu ànd ak Baye Gile. magam la ku mu bokkal ndey ak baay mu woo Baye Gille Baye Gille ñëw nuyu Serigne Salim mu ne ko bu ngoonee na ngeen ma fekk sa kër Baye Isma Diouf xam nga fa mu ne ko waaw. Mhm. ca ngoon ga Serigne Béthio ànd magam ja tàggu baayam Baye ku mu bàyyi leen ñu dem fekk Serigne Saliou kër Baye Isma juuf mhm. sëriñ Saliou def tëdd mu nga tëdd ci lalu gongo. ba mu leen gisee mu ñëw moo defal nii boppam ñu xaajal leen gis ñu ñëw ñuy doon ay xale yu ndaw mhm. xal ñu ñëw boobu sëriñ baa ngay warga kaas bi mu njëkk xel yi sëriñ Béthio la ko jox teg baraade yi puus mag ñi doog a séddoo mhm. boobu loolu ay wax yu ay wax yu rëy la mbirum baatin la loolu mhm. jël si gi mu ko doon jël si jaar gi mu jaar bu doon kuy kuy kuy dem yoonam rek kay ci yoon ba ngay jaar ci xàll wa ngay jaar waaye doo jaar ci diggu tool doo jaar ci diggu tool tool boo fekk boroom di ruuj doo jaar ci digg ba ci xàll wa ngay jaar dem sa yoon ci yoon wa waaye jaar ci diggu tool gi mu jaar loolu lépp ay mbir la yoo xam ne mbirum baatin la ba tax na sëriñ saaliw moo def Cheikh Béthio ni mu mel mhm. Serigne Saliou moo moo doon wane ne mooy Serigne Touba te wane gi mu ko wane daa yomba xam ndax ku donnuwul araf Serigne Béthio càllaleem donnuwuñ araf donnuwuñ baa donnuwuñ sin si moom ci boppam sax ku ne dégg na ne yàgg na koo wax jànguma araf yépp waaw laa ci xàmmee moom laa ci xam ndax li mu nuroog neuf mhm. kon xam nga ne kooku jàngul kooku donnul ak sëriñ doon nug leeru yàlla fenn bu demee ba mel nii mu mel mhm. ki ko def nii war nañoo lijjanti ci kana war nañoo fexe ba xam kii ku mu doon du du du lu ñuy xam sax mhm. waaye day yell ñu gëstu ci mhm. ndax sëriñ Touba moo mën lu ne cërub seexal bii mu ko defal nee naa la léegi keroog ba mu koy seexal ne ko def naa ci yow looleeg ñuy wooye ak ceex du lu kenn xam ku dul moom sëriñ Saliou xamoo ko ndax li mu wax dafa leer nañ mhm. nee na ko ku li ma def ci yow ku dul yàlla sama boroom xamu ko waaye danga jàpp sama digg ak yow mu mel ne ñaari ndab yox yoo di tànk ci lii di sotti ci lii mënoo cee xam lu doq yi war ci diggante bi dinañ la géntal di nga gént di nga gis lu ne. waaye lu mu rëy rëy rëy jàppal ne mu ngi mel ne doq yi wadd ci diggante bi ndax li ma def ci yow de ku dul yàlla sama borom xamu ko waaye ak ceex ak ceex mooy lu nit mënta xam sëriñ Saaliw nee na ko hmm, sallaahu dey sëriñ Tuubaa nee woon na fa mu jëlee cërub seexal tànkub góor yàlla mosu faa yegg tànkub góor yàlla mosu faa yegg cërub seexal te cër bi du lu kenn kenn jaam mënu koo xam waaye ay màndarga rek ngay xam ne ah nekk lii daal lii daal xam naa ne kéemaan la foofu nga ciy mën a yem ndax lii Cheikh Béthio mel nii mu mel lii mu man lii muy def ci yoonu Serigne tubaab bii du alal de Cheikh Béthio du alal de du alal ju teg ci wetam de nga xam ne lu jot rek mu tibb ci déedéet du alal ju denc ci banque déedéet li mbirum sëriñ tubaa la Sëriñ Tuubaa bu lay liggéeyloo di la jox ndigal moo lay jox dalay jox ndigal boole laag luy def ndigal la nii mu def Cheikh Béthio ni yaakaar ne Cheikh Béthio daa muy compte banque yi wala wala xaalis bu jale ci ay këram moom noonu de mbirum Sëriñ tubaa rek la am na ñu ko ëpp alal téeméer junni yoon waaye yàlla suñu borom Cheikh Béthio la ko jagleel jëf ji kon jëf ji du alal lu xaalis bu mu teg ci wetam kéemaanu sëriñ Saliou la xel kom gii ni mu nekkee kéemaanu Serigne Saliou nga xam ne sëriñ Saliou da cee wane ne mooy sëriñ Touba ndax man de maa ngi fàttaliku sëriñ Abdoulaat ba mu wootee Belel man de dama ne woon su ma añee pare laay dem keroog ba mu wootee Belel ne damaa woot sama tool yi Touba Belel bëgg ngeen ñëw ruuj la ma ko bépp taalibe nangam ak ba def annonce ba. Mhm. ba taalibe yi takk di jóg di dem. Mhm. man dama noonu su ma añee pare damay dem laata may añ ba pare fa may raxasoo la tool tollee jeex. Mhm. barke Serigne Touba loolu 1987 la. Serigne Abdoulaye Touba Belel boobu mu woote. 1987 la man dama noonu damay añ ba pare doog a dem fa ma toogee di añ laata may raxasul la la tollee jeex. sëriñ Serigne xel koom gii nga xam ne moom la xàll bokkul ak yeneen daara yi mu yore yi mu am def ko fukki daara ak juróom yoonu muru yépp daje nañ fa lay wan na sëriñ Saliou mooy sëriñ Touba mooy dimbali ñëpp fexe na ba yoonu muru yëpp daje na fa Baye Fall yi daje nañ fa ñu ngi fa seen sas ba léegi jeexul waa Njenne daja nañ fa ñu ngi seen sas ba léegi jeexul sas ba jeexul képp ku càllale bokk ci yoonu Serigne Touba yi am mbooloo sa sa ma nga xel ko kon xam nga ne kooku moo moo matale moo jot ndimbal lu mati lépp yoonu murit bépp sëriñ Saliou Mbacke dimbali na leen ci xel koom googu yi def ko fukki daara ak juróom yàlla sunu borom dogal keroog ba mu wootee woote mu rëy ci tabaski ba jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la sëriñ Touba doon def ci moom ma la Serigne Touba doon def ci ñoom c'est que ndeyam yollowu ko sax ma barkeelu ci Serigne Touba defoon ci mag ñi Serigne Saliou Mbacké wooteem boobu yàlla sunu borom dafa dogal Cheikh Béthio ma bokk ci Cheikh bi yóbbu ñu dem ci sëriñ Saliou dem liggéey li Serigne Saliou yóbbu ñu xel kom ñu doon ay donga sëriñ Saliou mhm. moo ne day Serigne Saliou bi muy woote de ci rajo bi la ko wax de ñëpp dégg mhm. waaye yow ndax xam nga sëriñ góor mhm. ndax xam nga kenn ku jóg yóbbu ay mbooloom mhm. xam nga kenn koo dégg ci jamono jooju mu yóbbu mbooloom dem joxe ji man de dégguma ko kudul sëñ Cheikh Béthio kudul Cheikh Béthio mhm. ñeneen ñi fa ñëwaat nag individuellement lañ ñëw ndax am na ñoo xam ne ñëw nañ fekk ma fa ca daara ja ñooñu moom ay dogal a tàbbi ñoom ñëw individuellement maanaam jëmm nit moo ñëw ne man damaa bëgg a dem ci sëriñ bi daara nangam ak nangam sëriñ bi nangu waaye sëriñ bu jël ay to ay ay taalibeem ak sëriñ ni mu bëggee taalibe ni mu bëggee sëriñ ak politicien nga xam ne dafa am baat boo xam ne baaxoo ko bëgguñu ko. Mm-hmm. muy soustraction maanaam di wàññi. Mm-hmm. sëriñ bëggul wàññi ay taalibe sëriñ boo gis daa bëgg yokk ay taalibeem rek ñuy gën a bari. Mm-hmm. waaye Cheikh Béthio jël ay taalibeem te ñim ci jël ndax dafa laajte. daa téléphoné Moussa ñan Baye Moussa. Mhm. ne ko Baye Moussa sëriñ bi dégg naa li wax waaye laajal ma ko moom ci to ñu toll ci yan at la soxla sëriñ bi ne ko. Mhm. ne ko ñu toll ci denc te dencaguñu maanaam ñu toll ci am soxna te amaguñu soxna góor yu dëgër. Mhm. sëriñ bi dajale ay taalibeem sëriñ Béthio dajale taalib bi yëpp samedi bu jot muuti oto ay njaganjaay yu fees tel yóbbul Serigne Saliou yàlla def ma bokk ci ñi dem ñu yegg ci Serigne Saliou mu yóbbu ñu xel ko ma amaat ci geneen tawféex man goo xam ne mhm. fii may wax ak yow góora xel koom ba xelkom daj buñ fa àndoon mhm. damay dox naan la gasal fii la tiwo bi jaar ndax man maa bokk ci ñi doon gas tiwo bi ñi doon tracé tiwo yi mhm. di xàll nga xam ne jamono boobu ruujaguñ xel da dangay taxaw doo gis ki nekk sa sa sa sa sa wet un mètre ndax garab yi ñoo doon goral suñu bopp di tracer di ànd ak géomètre bi benn géomètre bu tujoon ngañ puy moo ñoo tracé fépp fu tiwoon xel ko mu ndox tiwoon ndox fu mu jaar yàlla da dogal man maa ko tracé dama hmm. bokk ci ñi nga xam ne ñoo ko doon tracé di ko xëy chaque jour di ko tracé di ko ànd ak géomètre bi di ko tracé fépp fu ndox jaar ci xel kom bu ñu fa àndoon dama naan la fii la tiwo bi jaar diggante daara ak daara fii la seen tiwo dajaloo ñoo ko installe ndax bañ fay dem boobu xel comme ñu ngi koy tabax dañuy dañuy fanaan ci bii néeg booba booba booba néeg yi néeg yi bërigo bërigo diwlin yi moom lañ tàllal tegale ko rek mu nekk ay néeg xam nga li xam nga li ma wax. Mhm. dër bëri nga diwlin yi. Mhm. bu ñu egsee ci suñu surface ñun. Mhm. daan na ah gaañ maçon yi daan nañu ah gaañ te de fii lañu war a xëy si ñu dindi bërigo yi déplacé wu demaat feneen suñu kanam lañ tabaxee xel ko daara yi te lépp nag Serigne Saliou ko tracé. tànk boppam. kanam lañ tabaxee xel koom daara yëpp nuroo yëpp tolloo même même forme même dimension yëpp jublu penku te mosu faa dem yàlla dimbali nu ñun ñu fa sëriñ Béthio yóbbu woon ñu am fa tawféex joo xam ne bi ñu egsee daara ji am na nu mu doon nu mu doon nu mu doon doxee ndax boo jëlee ay xale yu ndaw ñii ay universitaire ndax ñu doon jàng université ñi yoroon seen métier ñu mel ne man yor seen métier di liggéey di fayee ko weer wu dee wu jot man damaa bokkoon ci taalibi sëñ Béthio yi dàqoon na sañse ci cant gi ak ñu dàqoon na maye mhm. yére mbasin riche dama ko daan maye montre fu mu gën a rafetee bu samdee ma maye ko chaque basin ba muy xew mhm. maa ko njëkk a sol ci taalibi Cheikh Béthio yi mhm. samedi bu jot bu ma neexaan ma sol lu bees bu ku way Serigne Saliou ma suñu ko joxee mbaa man la dimanche suba ñëwal kër gi ma jox la ko dàll ba mu marocain ba muy xew daaw ma ci sol benn weer te bu ne dama si daa am couleur am mm-hmm. na foo xam ne noonu laa jàpp woon sama àdduna mm-hmm. mu dimbali ma lool nag mm-hmm. ba bi ñu demee xelkom ñu xam ne keroog ba may dem xel xelkom sama waajuru góor maa ngi koy ñaanal yàlla na Serigne Saliou Mbacke yokk ay leeram ndeysaan dem na ba ci sëñ Béthio ne ko hmm. dimbali ma bu seex dem sama waajur jigéen maa ngi koy ñaanal yàlla na ko suñu suñu borom bàyyi lu yàgg hmm. dem na ba ci sëriñ Béthio ne ko dimbali ma bu seex dem xam nga lu taxoon hmm. booba maa ngi liggéey aw ma jabar aw ma dara maa ngi liggéey yàlla dimbali ma ci wàllu ñaw broderie ku ma ñawal même bu ma la ñawalee benn dëdd sax mu rafet boo ñëwee da ngay kontaan may ñawal jigéen ju ñuy wax euh, Ndey Koddu defe naa Jaal Mbaay woy na ko ne Ndey Koddu Soxna Njaay mhm. ba ma ba nga ba nga ba nga ba muy woy loolu suma kanam la kili mhm. baag lépp bañ koy def sunu kanam la maa ngi ci këram di di ñaw Ndey Koddu bëgg ma lool ndeysaan fonk ma mhm. boo may waxtaan ci Sëriñ Béthio jamono jooju du ma lekk du ma naan bu añ bi tàmbalee nii ba muy gars yi buñ buñ buñ suñ bëgg suñ bëggee lekk bu sax kii dañuy tàmbali Cheikh Béthio rek man pare naa ci lekk waxtaan ci sëriñ Béthio waxtaan ci sëriñ Saliou boobu àll yooyu lañ doon doxe waaye ba sëriñ bi wootee ma ne damay dem nday koor dina ma ah say jaan li ma lay wax rek yenn Cheikh Béthio kafem gi naa ngeen di naan nangam ma ne ko nday kodd man naa naan naa diw naa sangu nañ ma def lépp damay dem mm-hmm. yow bu ma toogee fii sëriñ Saliou Mbacke woote woote mu rëy wii Cheikh Béthio jël ay taalibeem yóbbu ba ba ñu jeex man ma ne fii te ñi muy yóbbu ñëpp di samay morom su ma la waxaatee ci Cheikh Béthio di nga di di nga di nga jàpp ne gëm naa ko mun ma ah, ah nga dëgg de waaw dëgg yàlla nag comme comme say moroom rek ñooy dem de boo fi toogee moom boo waxatee Cheikh Béthio kenn du la déglu ma ne ko loolu nag bokk na li tax damay dem noonu laa takkee samay bagage la 5 ma faye ma si mu jox ma programme lu ma war a ñaw ma ne ko non day man bàyyi naa damay dem daara mu wax dem def kaf ma def tëgg maanaam modèle bii nii ma ne ko koddu man xamatuma benn modèle fi mu toll dem dem rek mhm. noonu mu def kaf ma def dëgg mu woo Cheikh Tall rakk ji na ko ah kon de boo yeboo seet noo def ak Cheikh Diagne mu fay ma li ma fa am noonu laa jëlee oto dem fekk communauté urbaine bureau ba mhm. ñëw ci aliment boobu Cheikh bi secrétaire bu ñuy wax aliment moo nekkoon secrétaire am ma ñëw alima ne ma Cheikh jaaj ah loo fi wut ma ne ko Cheikh bi laa bëgg gis alima man ma Cheikh bi dafa am ñu fa ne ma ne ko ah man nag foog ma gis ko de ndax damay damay pare naa damay dem daara noonu alima ne waa kon xaaral ma xool ba xam duggu ñëwaat ne ma waa egg si yeggal si biir bi ma dugg fekk fa jeneen jëwriñ ji ñuy wax lamit Niang mu toog ma yegg si mu Cheikh eh mais Cheikh lu xew mbaa jàmm ma ne ko sant sëñ bi sant rek daal di génn enveloppe bi ne ko lii moo tax samay waajur ne la buñ bu ma dem. muy wërsëg bi. waaye bis ñi tey dagg na bis ñi tey dakk na ndax banaa fa ma doon liggéeyee enveloppe baa ngi nii fay nañ ma daal ko ko jox ko. ne ko mhm. damay dem daara mu ne ah, xool nga ko baax man di say waajur yi day day liggéey sëriñ Tuubaa day. Ah, noonu la ma ko waxee. daal di xalaat ne liggéey sëriñ Tuubaa jar na loolu. waaw na ma say waajur day wax nañu waaw waaw waaye day ah liggéey sëriñ tubaa day waaw waaw da ngay dem mhm. noonu la ma ko waxee ne ma waaye lii demal nga jënd ci ay short ndax foofu ay yére tubaab yi nga sol du fa dem pantalon sëriñ Sall bëggul gis ab dongob tarbiya buy sol pantalon xar ngéppi lañ koy wax mhm. ñun daaw ñu sol ay xar ngéppi la ma ci yoroon ak jiin ak yooyu mu ne ma boo ci amee ay jiin mën nga koo dagg mhm. ma dem suma ko dagg lépp jaar marché Colobane jënd fa ay ay ay short ak ay t-shirt jënd parfum jënd ay pâte dentifrice ndax boobu lu tax ma def ak ay saabu yoo xam ne. Mhm. ay saabu parfumé yu neex yu neex a sangoo ndax yooyu laa doon sangoo. Mhm. ma jàpp ne daara noonu la keroog ba ma eggee daara nag ba fanaan ba xëy suba wéy ko sama sar bi jël sama sama sama sama kii euh, brosse à dents. Mhm. damaa ngi fàttali ku ñuy wax Abdou Sakkour Diom ndeysaan ak yàgg a baax Cheikh Ibra Fall dañ naa dañ maa retaan ba daanu suuf. non Cheikh Diagne doo tey nga dee rek yow fii amu fi de. maanaam ah, ñii dañoo dof quoi nit ñuy xëyee suba doo borosu ah eh ndeysaan yaakaar ne daara noonu la waaye defuñu ci ñetti fan lépp laa maye daal di wu ci daara ja mhm. xam nga kon te ñu ci bëri ñu mel ne man. Mhm. bi ñuy dem dañoo jàppoon sax gerte ndeysaan lu ñuy witt lay doon ndax xamuñu dara ci mbay. Mhm. ñu dara ci tool ku juddoo juddoo Ndakaaru màggee Ndakaaru. defee lépp ci ndakaaru mhm. fooy xamee tool fooy xamee nu gerte di ñore man bi may dem daara damaa yaakaaroon gerte lu ñuy witt la mhm. dara laa xamul ci bay mbay am mbay ñu yegg ndey ndeysaan ñu fekk ca ay ñu fekk fa ay ay ay ma sëriñ Saaliw lu tax ci moom baax barki sëriñ Tuubaa ñu fekk fa ay gaayu ay ay gaayu yëgg ay jàmbaar ñoo xam ne oh ci ñooñ sax ngay jaar di xam di xam dara ci sëriñ Saaliw mhm. muy ay ay jàmbaar yoo xam ne keroog la sëriñ at moom la sëriñ Saliou njëkk a woote na am dajale sëriñ Cheikh Ndigal keroog la fa ñëw mhm. bi mu ñëwee yàlla def ñu wor ñu organiser yi sëriñ Saliou yi organiser mhm. sant sëriñ Saliou ñu ngi ko defee Touba Xelkom mhm. sëriñ Moutala Mbacke moo ñëw ci cant ga ñu rang di ko siyaare ji keroog la nanu bi ñu egsee sëriñ aboo Gueye ah ak ñi ñi ñi ñi ñëw ak wa ñi ñi ñëw ak sa bet ñi ñëw ak sa bet yi sëñ Mourtada ah yéen ñi day sàllaahu day ah day am ngeen lu rëy am ngeen tawféex mm-hmm. ndaxte day yéen day am ngeen sëriñ Touba. Mm-hmm. ndax li tax am ngeen am sëriñ Saliou Mbacke day moo leen may sëriñ tubaa ak waa këram yëpp na ngeen na leen leer na am ngeen sëriñ tubaa am ngeen waa kër sëriñ Touba yëpp ci am gi ngeen am sëriñ Saliou. ndax ñooñu ñëpp a ngi ci biir Serigne Saliou xam nga loolu lenn gënu koo leer wax jooju. Mhm. Serigne Moutala Mbacke wax ñu ko. sëriñ seex Ndigal bis boobu la ñëw. Mhm. yàlla sunu borom dafa dogal. Mhm. bi mu ñëwee fekk ñu dem tubaa xel Xelkom ci cant ga. Serigne Cheikh Ndigal sunu néeg ñun la fanaan sama lal la fanaan. sama kaw lal fa la fanaan ndax boobu egsi na ngoon gi fekk na daala ji ñëpp dem nañ xel Xelkom. defaragul dalam mu fanaan sunu nekk. booba la saal Sall njëkk a woote am dajale xel ko Baye Fall yi ñëw mhm. bay nañ fa loo xam ne ci ñoo ci ñoo xam ne ngonay ndakaaru mhm. doy man maa yoroon tracteur numéro 6 man sooy bu jaxate ak ku ñuy wax làmp sàll mhm. ndax tracteur bu nekk ñetti nit la daan am man sooy bu jaxate làmp sàll ñoo bokkoon tracteur ñu bay fa loo xam ne man bi ci bi ñuy déqi magum bay Fall dàq na ma ma def nii dugal dugal troisième di déqi larmet bi ci may déqi troisième mhm. ab Baye Fall dàq ma dàq dàq fëgg fëgg fëgg ma laal feneen taxaw waaye yéen yéen du ngeen ay nit waa waa doom ma ne ko waa bàyyi waa doom fu toolu yem ma ne ko bàyyi wax dëgg yàlla xaw ma ko de xoolal ba sa bët fu mu yem rek du ngeen ay nit de yéen te bàyyi faal yoo xam ne mhm. da lay woon ni ñi seen doole jeex na ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ñi mos ñoo gis leen jaaxal waaye keroog mhm. bàyyi faal yëpp a jaaxle gërëm la sëñ Amdi Xadi mhm. ak sëñ sëñ Amdi ñoom ñoo ma jox ndékki ndax comme jaan ji sant ñoom faal yi ñuy sant dañ doon kalante ñu lay gërëm xam naa bu ñu ko toppee donte ni lépp bari njariñ waaye liñ ci mën a dégg daal mooy fàttali nga ñu sëriñ bi moom moo doon kan mm-hmm. digganteem ak sëriñ saaliw may yi mu jëlee ci sëriñ saaliw ni mu ko nangule woon xel ko moo njëkk jël ay taalubeem yóbbu fa mm-hmm. wanoon na leen loo xam ni itam yéen ndaw ñi xemmee moom loon na leen sëriñ saaliw mm-hmm. bu ñu jëlee exemple ci yow bi ngay wan ginnaaw mën a ñaw lool di fayeek weer gisoo dara lu dul dem liggéey la sëriñ saaliw loolu ab liggéey la fi jamono toll nag këram dafay soxla ko mel ni yow koo xam ni dund nga ak moom lu bari. Mhm. te yàlla yàlla yokkoy leeram war nañu ginnaaw. Uh-huh. njaboot gi ñoom ñoo fi nekk. Mhm. coow nag am na noonu lañ koy wax. Mhm. bu ñu jëlee exemple soxna Aïda Diallo. ñu sa waroon jóg topp ki nga xam ni moom moo di taawam loolu it lañ min ci yoonu murit muy ko ku fi jóge sa taaw mooy nekk sa xalifa. ñàkkul ni nag moom ci ak nekkam daana joxe ay cër loolu te bëgg nañu nga dellu ci li ci ak leeral. waaw danaa sos ay jëwrin mm-hmm. mooy comme li ma la wax sànq ci tàmbali bi mm-hmm. boo jébbaloo ci moom day seet gox bi nga gën a bi nga dëkk mm-hmm. mu boole la ci daara jama am foofu daara ja nag day am jenn jëwrin nga xam ne jëwriñ ja day socc moom moom day jële ndigal ci sëriñ Saaliw woo jëwriñ yi jox leen ndigal yi ñu jëfe nga xam ne dañ daal toggal sëriñ Saaliw ajjuma ak samedi. Mhm. dañ ko daa toggal ñaari nag bés bu ajjuma ak samedi ju ne dañ ko daa togg. Mhm. dañ daa jékki-jékki sëriñ Saliou di am gan woolu ko ne ko ngan nga yaa koy yaa koy yor. Mhm. nganuk sëñ Abdou Khadir ay ay nganu président euh, Abdou Diouf. yooyu am ak ak nganu ngan yoo yu yu yu mag yi nga xam ne sëriñ bi dara soxla ay togg yu war yi. wala ay tabax daara xeetu ndigali sëriñ Saliou yi mu daa jox Cheikh Béthio. su ko defee cheikh bi day woo jëwriñ yi nii jox leen ndigal yi ay ca daara ju ne nangam. daara ju ne ak daara ji ak ci taalibe bu nangam daawuñu wax nag taalibe bu ne di nga joxe 1000 francs déedéet. Mhm. waaye kem ni kem nu la sëriñ bi toll. Mhm. man mii di wax ak yow. Mhm. jël naa alalu jàmbur ñëw indi. liggéey naa weer bu dee ma jàdd ak sama salaire joxe. leb leb naa ba leb lu ëpp sama salaire nga xam ne weer bi ba mu dee fayeekuuma jaay naa sama lu ne jaay naa euh, appareil photo yu ma yoroon ndax seex bi dama ko daan photo tamit. moo mhm. daan ànd ak moom dama daan photo. Mhm. maa ngi ci ay photo yoo fii may waxee maa ngi ay photo yoo xam ne. Mhm. ba ci ngénte Seydina maa ngi photo yi Seydina mii nekk tey jii doomu Cheikh Béthio. ba keroog bañ koy tudd. la xewoon ci tudd ga am na photo yoo xam ne maa ngi ak moom ba léegi. nga xam ne ñeenteelu cant googu daa mel ne ni may gisee sama loxo yi fàttewuma ci dara. Mhm. waaye jëwriñ yooyu loolu lañ moo nekkoon loolu moo nekkoon relais par rapport ak sëriñ bi ak par rapport ak taalibe yi. Mhm. ñooy ay jëwriñ lañu ay taalibe la ñuy jébbalu comme yow ni ngay ñëwee jébbalu. Mhm. waaye ci sëriñ bi mooy xool koo xam ne jàpp ne pas-pasam ak passeefam mën naa rëgët mbooloo mi mën naa mën naa mën naa jiite mbooloo. mu def la ngay ngay jëwrin mu samp la ngay jëwrin waaye du mbooloo mi ñooy seet ku leen neex rek comme ni ñuy defee daayira mhm. ndax sëriñ bi amul ay daayra daara la sos comme ni sëriñ Saliou Mbacké sosee daayira ndax différence su daayira ak daara mooy daayira moom dañuy bokk secteur mbaa ñu bokk koñ nga am sa sëriñ ma am sama sëriñ kee am sëriñ waaye nag ñun ñëpp ay murit lañu ñu ne nañ def daayra di daje dimanche muy am ay trésorier secretaire général secrétaire au commissaire de compte ak yooyu comme ni ko Serigne seex Mbacke Gaynde Fatma instauré woon ci yoonu Mouride. Mhm. ndax Serigne Cheikh Gaynde Fatma moo indi mbirum daayira ci yoonu Mouride. Mhm. dul Serigne Touba sos mhm. lu mu yokk ci yoonu Mouride la. bien kii na baax na lool te te te tax na aussi ñu bari liggéey ci Serigne Touba. waaye sëriñ Saliou moom deful loolu ay daara la sos daara. mooy dañuy am mbooloo mi dañuy booloo waaye benn sëriñ lañu am ñoo koy bokk te sëriñ bi mooy tànn jenn jëwrin du tudd président jëwrin lay tudd waaye nag taalibe la comme ñëpp ndax li war taalibe yi moom moom tamit da koy war noonu nii la demee ba tax na cheikh bi comme yàlla defal na ko fu mu toog ay junni junniy taalibe jébbalu ku jébbul rek mu seet fa nga dëkkee mu boole la ca daara jooju boole la ak jëwrin ca nga dox ndax ñëpp tamit mënuñoo sosee ñëpp ci sëriñ bi looloo waraloon mu samp ay jëwin waaye nekkuñu ñooy sëriñ bi ay jëwriñ ndigal yi ñuy dajale ñëw joxe bu ñu amee ndigal bu sëriñ bi joxe sëriñ bi yàggaleel ko ñu yàggee ko taalibe yi noonu la demee woon bu ñëwee ci indi nga ci suñu suñu suñu suñu suñu laaj indi nga ci ay tontu waaye bu ñu ci ñëwee direct. dafay mm-hmm. tekki nii fii ne dafay nuru ni dafa mel ni dafa am ñaari xalifa. foofu foofu laa jëm si. Mm-hmm. lii xew nag ci jamono ji ñu toll nii mu mel ne am na réeroo.